laa ilaaha illallah faal laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal yàlla laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal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 laa ilaaha illallahu anbiya laa ilaaha illallah wa anbiya laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall addiye maam suuru abuur jaalullahi maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baal muridiina wal muridaat takk jóg seen yéene liggéeyal maam Bamba ak maam Seera Fall jëriñ jaam ñi di tàmbalee ci maam di yem ci maam waaw tàmbalee ko kalimatulaa bi ñuy laal di dëgg gi waaw njëkk te mujj rek waaw dëgër këcc rek saf saf fa yàlla yàlla ni sax di gën a bëgg tey gën a gëm tey gën a jàpp maam te koy gën a bëgg di ko gën a gëm parce que maam Seera Fall da sàkku waaw sëñ Bamba maam Seera Fall maam yàlla point boo ko pointé barke maam Seera Fall loolu yàlla du la saf yàlla képp kese dong moo lay saf moo tax li ñuy safoo ndamoo tiitaroo mi mi ko sangoo sangoo xëppoo solo moo waaye yàlla ji yàlla mooy waaw salaam rahman rahim karim ji allahu xam nga lépp ji daal waaw yàllaahu ji sunu boroom waaw waaw rabbana maam sunu maam waaw ibrahima yàllaahu waaw man seeraayam fa làmpaal mur dina yalaahu yalaahu yalaahu yalaahul ji la waaw féppam rek waaw li yàlla képp kese dong nag barki maam seera faal Ahmadu borom ñeent xibla yi yalaahu yalaahu yalaahu yalaahu fépp maam yàlla la waaw fu nu waay ne nag ma fa waaw kon nanuy jéem a ne ci moom ndax fu mu ne ma nga fa de kon waaw def lu leer te mu tax rek ak lu baax ak lu wér waaw sàkku ci nag di ko ko jaamoo te ko koy liggéeyal te ko koy dund di ko ndax mooy kenn kii ku fi nekkul fii tudd moo la ko diw defal la ngay moom waaw moo la defar ngi nga doon ki ko doon waaw lépp di yàlla yi képp kese dong waaw kon bëggante jàppante fonkante liggéey jaamu yàlla kenn ñu cee man danu am ngor ak gor ma sàkku taalibe bëgg sëriñ Tuubaa ak maam Seera Faal gëm leen wóolu leen barkeb maam see Faal waaw waaw ngir lislaam ngir diine ngir borom diine ak lislaam ngir muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ngir maanaam kulhum sëriñ Bamba maam Seera Faal point moom a doon bi sant ko waaw di sax ci ñoom nag mooy ci ñoom fayalaahu waaw mooy njariñu jaam ñi dafa jot